قد صلاة الفجر يلقى هدي أنا صلى الله عليه وسلم ci maam Cheikh Alhaji Malick ak njabootam yépp ñaan yàlla yàlla yàlla doon seen leer waaye ñu yéene waale ci muxaddamu tarixa bi yépp yéene ci maam Cheikh Omar Fouti Tall ak njabootam yépp yàlla yàlla doon seen leer ak bi seen barke bismillah fatiha ñeenti woon salaatul fatihi fukki yoon से भी उसको बनाने तो हम मुझे आप ñetti yoon ñu am ndigal ci joxatul commande ñu def ko ñetti yoon dañuy ko ñetti salaat al fatiha ñu def ko haddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko suñu ziar Cheikh Seydi Ahmad Tijani Cherif ak njabootam def ko suñu ziar ci moom Cheikh Hadj Bari ak njabootam ñaan yàlla yàlla yàlla sàmm tarixa bi sàmm njaboot tarixa bi yàlla aar tarixa bi aar njaboot tarixa bi ñaan yàlla bés bi yal na ko yàlla barkeel lépp luñ fi jaamu yàlla du dee mu bari yal nañ ko yàlla nangul ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu fekk ko ay at yu bari te mu gën yaatu ci darajay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu faj aajo yi jullit yëpp ñaan yàlla réew mi yàlla fi yàlla doon def jàmm jàngoro ji lëmbee àdduna yàlla ko fi yàlla jële ci darajay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam انشاءالله ولی سیز کل لی کماسه خدربی یه نوار اتکه یالا فیالا بال دفتم یالا دفتر ابتدو یالا دفتر دپو یال یالا تاریخی یالو کیالا دگر داوی یالا نه یالا دگر چه درجه سال الله علیه وسلم salaatul faatihi ñetti déwén pour ko ายุงเยอะกับผมมันยังพีรักมึไม่ครบมึงมันนยบนนนท์นอนเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรมาอ่านงก็สัตว์เอาไปวะบ้านบ้าน muxtaar ah, waaw waaw li muy fas door xadra dafa am ku wàllu tawaaju oto Hyundai ñu ñaan ku ko for dafa am ku ñu ngi laaj borom bu ñëwee na ñëw ci Assane Ndiaye Sarr ndax ñu ngi fii toog ci ñiy wasifa caabi oto yënkaay ku mu wàtt ñëwee fii rek nañ ko jox incha allah borom yi أعوذ بالله السميع العليم وصف بالله خلق مقاو دمقا الله الو الو الو الو الو الو الو أعوذ بالله سبيل العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي غنا بو سنت يالا دي جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي باك دي كاج مولانا ابن عباس يسال سن زيار سي مام شيخ سيدي حاج ماك جابوتم ييب تبارك الله ني نيو ييب دي لين زيار ياكارنا كو غيس لي تبارك الله تا غاي جوليت وقت ملا جوليت صاح بو غيسيل ديغا بك تبارك الله لول نك كي نيوكو ماي موي سيدنا محمد كي نيوكو ماي موي شيخنا تيجاني كي نيوكو ماي موي مام شيخ عمر كنو كماي مم مي جنبار الشيخ سيد الحاج مالك نخ يلا يرنتي موهون شيخنا التجاري أمر النبي إمامنا بتنزل وينك لإفادة الأخلاق بالبر الجلي حاج مختار تبارك الله يلي لا تلك ميرمي تبارك الله لنغو كيجي تبارك الله أك نوك سانتوري جرجف سي عبد الكريم يلي نيو باخ دي لا زياره دي لا ndokel دي لا واخنا لي كونتان نانجي waaye ni nga ko waxee mboolem jullit yëpp kontaan nañ ci ndax ndax dafa am lu Seydil Hadj Malick waxoon bi mu koy wax nag daf ko wax rek waaye jamono moo koy firi mooy laqad rufiat raayaatu uslubi cheikhina fa man saa fal yumim fa man saa ankara dafa baax rek waaye mënoon na wax ne laqad rufiatu man Seydi Aji Malick yëkkati naa raayaatu Cheikh Amadou Tidiane waaw waaye mën a yëkkateef na ko pour nëbb boppam waaye mun ne loolu kum neex loolu yàlla dogal ku ci àndul tim loolu yàlla dogal man nag dafa am benn constat bu may def léegi ci mbalaanu wasifa mooy léegi gis naa ne mbalaanu wasifa yi xale yi ñoo ci ëpp loolu sant yàlla la waaye tim di wane ne mbir mi dëgg la mën nañ ko cee jàngee ndax xale lépp lu nekk ci loxoom bu fekkee lu wér la mën na mën na sax moo tax tarixa bi dana fi nekk di fi nekk di fi nekk ba àdduna tukki tarixa bi ànd ak àdduna kon loolu ma siy ñaaxaat sama bopp di si ñaaxaat njaboot gi ñun fonkaat wasifa yi fonkaat xadratul jumaa yi fonkaat suñu kurus fonkaat suñu métier ndax loolu mooy li nga xam ne ñun moom lañ fi dese ginnaaw ba ñu jaamoo suñu farata bi ñu war suñu diggante ak suñu borom ndax Seydi Hadji Malick wax na ci bi Raaxibiina mu ne laqad ارتفعت التربية بالإصلاحية ولم يبقى إلى الإفادة بالإمة والحال إذن فعليكم بالكتاب والسنة من دم تسرين سرين بي يرلا دلا دفر بغا أغي تي يالا مقام بوب تنن كو لو في أم من نغا دف يته ساختي تي صلاة الفاتي ساخ تي استغفار ساخ تي القرآن مو تلو لولا مام بابا كرسي وخ بإمة أو بحال حازة تربية نعم المربي مريب الحق يرداه ما شاء الله jërëjëf. macha allah rabbi yal na yàlla fay la si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañ ci yow lool tabaarakallahu muy ndaw Seydil Hadji Malick ndax ulaayka alxawmu asxaabu nabi asxaabu rasuli asxaabu ibnu Usmaana tabaarakallahu loolu moom maam xa di wax yal na yàlla fay la si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee rek may jël oustaz Cheikh Tidiane balaa ñuy commencé ñu bëgg wax la rek ngir ah, waxtaan ak yow si xadara bi tabaarakallaahu seex yaakaar naa ko gis lii dinga nga ndax lii ndam la seex ah, yàgg na am ndam seex yàgg na am ndam waaye nag lii bu ko ñi gisee tabaarakallaahu mu demee nii ndamu yonent bi la ndamu yàlla la waaye ndamu yonent bi la waaye ndamu seex Sayyidi Ahmed Tijaani la waaye nag ndamu jàmbar jara Cheikh Seydi El xaaji Malick tabaarakallaahu Cheikh mbir mi na nga ko gisee. waaw mbir mi moom Pape tabaarakallaahu xoolal stade bi rek ni mu mel booy xool tey ndaw ñi ñoo ci ëpp mais lii dolli sant yàlla benn tàkkusaan nga daje ci mbooloo mel ni njabootu Cheikh Seydi Ahmed Tidiane rek ka mën a am te li yéeme ci mbir mi Pape tey xam nga fii tey boo fi doon laaj almet doo ko am boo fi doon laaj briquette doo ko am kon liggéey Cheikh Seydi Ahmed Tidiane mooy feeñ ci gox yëpp. ndax moom li mu am maamam moo ko jox maamam subhaanahu wa taala yàlla ci moom la jaar jibril la ko joxoon sayduna muhammad mu ñëw jox soy saydi ahmad tijaani cheikh moo tax sëriñ babacar si radiallahu anhu waaye nanu sant maam cheikh seydi haaji moom mi nga xam ne moom moo jaboote moo léem luy kër cheikh la tijaani cheikh seydi haaji malik na ba ëttam mu ëttam ëttu këram xalifa cheikh seydi ahmad tijaani du jóge ci ëttam waaye cheikh nag li mu am léegi gën a fa mu tëdd fa mu tëdd fa mu tëdd moom Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bërëb bu yéeme la woon te yëg nga ne Abdul Karim yëg nga ne tukki tukki moo taxoon Cheikh waaye dëkku fa Cheikh Seydi Ahmed dëkkul fa mu tëdd fa tukki la woon si yoon ndax Cheikh a may na la booy tukki nga ñëw ba ci yoon nganta dab la war nga mën a ubbi jàkka nga fanaan fa def fa la ngay def loolu moo dab Cheikh Seyd Ahmed Tijani waaye judduwul fu nga xam ne foofu la tëdd ca Maana waaw waaye nag ma ba mu fay tëdd moo tax keroog ba loolu amee waa dëkk ba ñu yeewoo Cheikh Seyd Ahmed Tijani gawar yow ña mu àndaloon seeni gawar ya ñu yoroon te dëkk ba bu ñu daan yeewu gis gan gu ñëw ci dëkk bi dañuy xool gawar yi dañuy def ay neefare yàq bërëb ba waaye ñu gis gis bërëb bi set wicc suttiw ñu fa dara lu doy ni conkoor Abdal Karim suttiw fa ñoom lii ne lii ñu ne lii miracle la masul am fii ci Maarib gi ñu ubbi jàkk ja Cheikh Cheikh Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak ñamu àndal xoolal loolu. ah tabaarakallaahu xay Cheikh loolu am na solo waaye dama taxawaak ak sama benn oustaz di sama soppe sama xarit ka oustaz baay Mor Sall tabaarakallaahu moom bokk ci ñi organiser mbir mi ñu ñëpp tabaarakallaahu si la ñu bokk waaye ñoom du ci gën a yaay tabaarakallaahu oustaz yaakaar naa ko gis lii bëgg na tabaarakallaahu rawatina ndaw ñi ñu ci gis ndax bu njëkkoon yii mag ñi da nga si gis waaye léegi jamono dox na ba ndaw ñi bëggal bopp seen bopp tarixa bi loolu ndam la ndamu yàlla la ndax tarixa bi sa yàlla jóge waaye ndamu sayiduna muhammad la ndax moo waxoon na tijaani anaamu rabbika wa anta waladi wa cheikhuka kal abar kullu di tabaarakallaahu ba noppi maamam digal ko ne ko amara nabiyu imaamana bi tanazuli waaye nag lan moo tax li ifaadati l axlaaqi bil wirdi jëli yaakaar naa lii boo ko gisee tabaarakallaahu mbégte rek moo si am wallaahi Seydi Abdou Karim ñu ngi lay ziar di la delloo sa wàccuwaay di am kontaan ak mbégte ci li nga wax mu mel ni que lii buñ ko gisee mbégte am na kontaan te am na mooy ni nga ko waxee mag ñee ko daan def tey nag bu ñu demee ba nga xam ne relève bi xale yi jël nañ ko ñu jël taxaw bon wax dëgg yàllaa mbégte ak kontaan tereer la ñu bu baax a baax a baax waaye damay wax ne si suba wax naa ko bi ñu inauguré rue bi di ko tuddee Seydil Hadji Malick 2 kilomètres 500 ñu koy tuddee Seydil Hadji Malick tey ci suba ma ne waxuma la 2 kilomètres 500 waxuma la Tëngéej waxuma la Sénégal waaye àdduna bu ñu ko tuddee woon Seydil Hadji Malick mënuñu ko fay ndax liggéey na lu ñu toll mel na lu ñu toll ndax dama koy wax toujours lu bari liggéeyu Seydil Hadji Malick commencement bi rek mooy commencé nii feeñ waaye ca kanam la xam kan mooy Maodo xam nga li maam Mansour wax moo firndeel wax bi xas bu sibaaxi xawaahu fii xadaasatihi sinnan fa lay sa yuraa fil xasri sarwa ah raw ak maasam bi mu nekkee tuut tànk te comme si jamono ku mel ni que Seydil Hadji Malick du ñëw te amul te dootul amati nan la leen rawee xilman wa suhudan xawfan wariyahan xasiyatan waaye nag maa xawarati saraaxu ay xeeti xam-xam la ak jikko ndax li mu njëkkee mooy xilman la déparé xam-xam doomu soxna luñ koy nawee xam-xam moo tax bi muy tafsir alquran moo ko indi moo ko indi tiwaawoon daawtukum jeex na tàkk ajibo moo tax bi muy firi alquran tiwaawoon ba toll ci wax naa ko ci suba immigration ba ba toll ci wa in kuntum ala safarin walam tajidoo kaatiban farihaanun mahbuda benn waay dafa toog sa jataay ba ne Maodo ne ko ndax dama juum mu ne ko juumuloo mu ne dama la koy firil mu ne wa in kuntum nekk ngeen ala safarin ci réewi tubaab walam tajidoo te amu leen kaatiban sor euh, euh, ngannaay farihaanun mu ne joxe soldaar max bootoon la ñu nangu la mu ne nag bon nag Seydi Ahmed dafay dem guerre bon kooku ngay xam ne Seydi El Hadji Malick na ndax booba mi ngi yor ay doomi jaamur waaye rek bàyyi fa bàyyi. foofu ngay xamante Abdou Karim ne booba sayyid Hadji malik pourtant manon na jël ay doomi jaamu waye defu ko waaye njabootam di tawam mom la jël joxe kon koku nga xamné sayyid Seydi Hadji Malick sàmmonte woon na ak xam-xamam bu baaxa baax koku sayyid sayyid Hadji malik mo tax may wax ne serigne jafena waye bu ragal yàlla bee jafe moo tax maam man su ne seyxun taqiyun ala istiqamati lillahi mu ani loolu moo jafe oustaz moo jafe ci jamono ji sëriñ dafa yomb mhm. moo tax moom daan na wax ne génne leen ma si raawu sëriñ ndax jamono dina ñëw ba sëriñ day latte mhm. ndax xamoon na lii mhm. waaye moo tax mu ne génne leen ma si naam mën na nekk sëriñ waaye nag taqiyun tabaarakallaa moo jafe léegi nag tam moom yàlla ko defal loolu Cheikh Sidi Hadj moo tax bu ëllëgee li alquran naan da nga gis koo xam ne da nga rangoon ci moom nga defoon ko sa kilifa nga séen ko muy ñëw nga daw téye ko dóor ko poñe dóor ko mbëkk istabara alasina tubiu min alasina taba waraawul asab wa taqataat bihimul asbaabu ñooñu alquran di wax Seydil Hadji Malick bokkul ci ñooñu Abdul Karim macha allah oustaz bëgg nañu baax tabarakallah di am contentement tabarakallah ñu ànd ak la Rufisque waa TV nga xam ne tëngëj la ne waaye yitteem yëpp tabarakallahu mooy tariqa bi yitteem yëpp tabarakallahu mooy li jëmale adduna bi kanam ah bu defee nga dolli si ñaan bu baax a baax a baax incha allah alhamdulilah na ko yàlla jëmale ca kanam fa ñuy yëg dégg télévision yu mag yi yal nañ ko fa dégg yow it yàlla taxawu la la soldaar nga ci tariixa bi ci kër gi xam nañ sa yitte sey taxawaay xam nañ ko yal na yàlla taxawu la te sàmm la bi jar ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakallaahu macha allah ah, bu ko defee am nañ contentement bu baax Oustaz xam naa dañuy dañuy dañuy waaj ah, ngir ah, jëm si xadara bi. ndax euh, tabaarakallaahu li mbégte la seex ba ma ñëwee gis ko damaa bég tabaarakallaahu wax ji day xaw a dugg ci biir moo tax bu nu ñu dem ñu dëgmal xadara bi suñu paree rek mën na yaatuwaat après incha allahu rabbi mi ngi noonu kon bu ko defee rek ñu dem si xadara bi incha allahu bi وسيدنا ومربينا وأستاذنا ووالدنا ومولانا الحاج مالك رضي الله عنه وارضاه وعنا به آمين ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم ومن تعلق بالأذيال قاطبة صب علينا إلهي أبحر العصم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم تقبل إلهي يا رحمن توبتنا والرضوان والكرم كذا أصول الحكم ومن لنا مصر ومن نسيء له يا الشديد التراكم فها نحن بضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحل إلهي فاجعل وأهل اتباع سنة في التراحم نعد عليها بالنواجذ مثل ما به قال بالإيصاء نظرة هاشم يا شيخنا أحمد التجان ملجأنا أهل الوسائل للرحمن من جانا هذا الزمان زمان هال جملتنا بكل يوم بما نخشاه يخشانا وأنتم الحصن في شيء نحاضره بكثر الصواب بما نرجوه ما كان بك استرسنا بما نرجوه ما كان بك استرسنا بما نرجوه ما كان اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب خيرا فتحته على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وبجاه خاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين